Euh, naan mbikum hupp baax na ci laax bu tàng wolof njaay ko wax li mu fi wax bërki démboo njaay moom Ousmane Sonko di sàkku ñu woolu ko àtte ko lam bëggoon xam na ko ndax wal fajiri yéene kaay moo ñu xamal ne weeru avril bi ci lay yoon di woolu Ousmane Sonko déglu ko ci diggante mook Adji Sarr bés bi yéene kaay na ko faala ci yokkal Ndeye Khady njaay boroom salon ba moom talaata bi di ñëw ci la ko àttekat bi di déglu ba tax yéene kaay bi na salon ba ki hubbi gémmiñam dal ci kaw Ousmane Sonko yàkk ko Pape Diop yaw seetal fa xam la ne fukki nit ak ñeent yi fi faatu woon ci weeru mars bi usmaan Sonko moo leen rey mi ngi ko waxee ci les sécu yéene kaay ci Vox Populi Lat Diop ne Ousmane Sonko fañ ko war a xàttee lu mu laaj nag fañ ko war a def ba xàtte ko ndax su loolu amul fay xam ndam ci kaw état bu Sénégal maanaam état mooy perte fañ ko war a woo déglu ko àtte ko su fekkee defu dara wax dëgg yàlla nañ ko setal deram bi wecc ba ko mu dem su fekkee nag moo def ah lam ca na ko gar rek Babacar Diop na ko xëy faa bëgg man contrôle judiciaire bi ñu def Ousmane Sonko bitim réew mën a doxi ay soxlaam ndax lii Afrique caaxaan-caaxaan la ma ko waxee ci wax su populi info yéen a kaay ne yi faa bëgg ngeen xam ne fan yi yëpp fa ñu génn di attaqué Ousmane Sonko xam nga Sonko moom su waxee rek mooy dëkk bi yëngatu na coow li bari ñoom Mimi Touré ñëpp ku nekk di ko tontu les gelwaar di xam ne ne loolu mooy firndeel ne Macky ak ñim àndal fa ñoo jàq fa ñoo tiit jaxasoo yéen bi na Babacar Diop ak waa gelwaar métti ngi dox diggante Macky Sall ak Ousmane Sonko kii mooy président bu Sénégal muy Macky Sonko nag moom donte du président ay Sénégal yu bari fañ koy déglu bëgg ko gëm ko boole ci réew mi yéen a kaay ne kujje googu dox seen diggante nag lu waay jot rek fa koy ngàdd moromam le mandat yéen a kaay ne neexut ba neexut waaye Sonko ndaanaan la fa maîtriser seenu politique u xam la muy wax ak nam koy waxee yéen a kaay bi di koy méngale ak Ablaye Wade ci temps leer laneen lu leer ba yegg ca nañ ja mooy ne Ablaye Wade ak ñam àndal waa wàllu Sénégal ñoom itamit nee nañu d'accorduñu ci parrainage bi ci élection député yi turbine yéen kaay ne kon ginnaaw gëm sa bopp d'accord yeewi askan na d'accord Wade tamit nee na d'accord alerte yéen kaay ne ba pare nag Ablaye Wade fa hubbil buntu dialogue Macky Sall ci 24 heures waa wàllu yi ne Macky fa war a dajee ak mboolem coalition yi waxtaan ñoom ci wote député lu baax fañ ko a fay tax liste parallèle dootul xamati ak ku meree ci benn bokk yaakaar ba def sa liste bopp soo ñëwee makki na la xalaa ma ndir bàjjo xalaa xalaa doo fi jaar ñu ne la sa liste bi baaxul fa ngaa doublon ak kenn xamul su ko defee fa ngay fori new ña fori new nag ci élection locale yi mooy bokk gis-gis waaye ña ngay yuuxu di tuumaal nguur gi na fañ leen a sàcc ñaari commune yoo xam ne ñoo ko gañe la leen naqar yi koy wax ca source ay yéen kaay a <laughs> kujje gi société civile beeg ñëpp kenn ku ci d'accord ba tax Momar Jong joxe ca xalaatam ak gis-gisam 24 heures yéen a kaay moom fa xëy di ñu xamal ne Idrissa Seck wote député yi di ñëw ba moytu fanara fori new de ay mbiram daal fanara doy waar de Habib Niang maa ngi cay haddu ginnaaw bu mu ca jaaxle li jaaxal njiit réew Macky Sall mooy wàllu aménagement bu diwaanu Pikine plan spécial la ca Macky taxawal yow seetal CRD bañ ca doon xamal bañ nekkee ci biir waxtaan wa ci la Macky Sall wootee téléphone ngir xam fu liggéey ba toll laas yéen a kaay moo ñu ko quotidien mooy yéene kaay mooy jàmbaar yi soldaaru Sénégal yi ña ngay jeexal Saliou Sadio de ak ñam àndal robele Casamance suñ soldaar yaa ngi leen di rey nangu nañ seen base dalwaay yu bari ba tax yéene kaay bi ne la nar a doxee jeexal le kaay dëggal ko ne juróomi fan ginnaaw bu soldaar si songee Saliou Sadio fi mu toll nii Sindia soldaar yi teg nañ ko loxo ña ngay làggal Saliou Sadio ak ñam àndal critique yéene kaay na ko hée waaye def leen lan leer leneen lu leer ba yegg ca naan ñi ja mooy ne RFI rajo France internationale ak France 24 kilifay réewu Mali dakkal nañ ko fa dootul fa tàkk dootuñ fa waxati ndax fa ñoo jàpp ne RFI ak France 24 xibaar yu leen arrangé rek la joxe ñooy taaxal réew ma ak wax lu du dëgg Le Soleil yéen a kaay na ko président Macky Sall pourtant woo na téléphone que soldaar sa ca réewu Mali di ko woo ci ñu waxtaan ngir génn ca jafe-jafe a kaay di bi ñuy wax Mamadou Ibra Kane yoon daan na ko benn weeru kaso bu muy tëdd ndax a député ya ak Sall ña nga des ca kaso ga seen atte ba fañ koo dàqaat bés bi yéen kaay di ñu xamal ne 703 commerçant teg nañ leen ay daan ndax fa ñoo bañ ne du ñu wàññi njëgu dund gi ñay dund ak jaaxle mooy askanu tëngéej juróom-ñett ci seeni doom ay nappkat ñoo dem ci géej gi ba léegi ñëwuñ te ba léegi yàgg na ña ngay ñaan te jàkka ya vox populi moo ñu ko xamal libération di ñu xamal ne Faatumata Tunkara mooy ndaw sa jëloon nee jooy ak maamam bu jigéen ba ak wujj ndaw sa di defal yaayu xale bi ndeke ñoom ñoo ko rey enquête ba nag nee nañu xaalis ak fiiraange moo tax ñu rey doom ja maam bu jigéen ba bëggutoon doomam bëgg a takk ñaareel enquête yéen a kaay di ñu xamal ne Sénégal fi mu toll nii jël vidéo jàmbur yu mu def yara mu neen di ko ca laaj xaalis wala wane ko ci internet bi ñu bëri fañ koo def liggéey fi mu toll nii te lu bon te ñaaw la laneen lu ñaaw ba yegg ca lool benn maire moo ko def yow seetal ndaw si daal doomam bu jigéen fa xam doom léegi mu bëgg dem yebbi ji wane dooleem te xamu dara tax mu dem tiriyaan àndee dóor ñaari soxna ay tisi lu jege ñaari million ci suñu xaalis allah ñu mujj teg ko loxo waa ma ne yéen jigéen ñi bàyyi leen yebbi gu bëri yàq gu métti gi ngeen nekkee ci ngénte yow fa ngay lepp ngir yebbi ji fa ngay ñaan ngir yebbi ji léegi nag fa ñuy sàcc tiryaande ngir am lu ñu yebbi jee lu ko fi jar xam nga ne ndaw si yebbi lu rëy dëkk bépp di ko coow ndekete fa ko tiryaande ñu koy jàppale tëj la kaso ana googu gàcce foo koy waxee def loo mën wax loo mën wallaahi soo tëddee fa ngay nelaw